déet bul xëccu dara ko ku moom. di xale bi dabal fii am na am na am na douze. dabal du ko foofu xale bi tapale ko. xale yoo xam rek loolu du dara bàyyi gune gi rek. wallaahi da ngay bàyyi loolu nag ci weeru koor nga nekk. da nga fa am yi nga xam ne war nga koo mën a gëm am yi nga war mën a gëm. kii li la wax wax na la ko ba pare bu ko xëccoog moom ab gune la bàyyi gune gi. xale Dakar yi la bàyyi bàyyi loolu. xale Dakar yi nañ ko xaar donc ah nañ ko xaar donc gasama yow sa tàngoor gi doo ko bàyyi mukk ah wàññi li nga nekkee te xam ne lii àdduna la kii sa jarbaat la ah. wallaahi seetal ci man seetal ci man. bàyyi bàyyi <laughs> nañ ko xaar rek. bàyyi loolu du dara. <laughs> xam nga yow loo wax rek bàyyi na. waaw waaw waaw waaw moo tax nga ne xaar wàññiwuñu dara. <laughs> wàññiwuñu dara. waaye bu mu yàgg nag. non non non déet déet bu dugg ci biir kat mënuñoo xam lan la nañ ko xaar rek. ah yow waxtu bi demagul fenn. Mbaa du da ngaa xiifati. xam naa koor gi da lay rek loolu moom gis nga ko. xale bi yàgg na. loolu dara comme nee na kañ biir bay metti dafa bëgg a dem. sunu xale ndakaar yi te toilette moom xale waaye loolu bul dugg ci loolu te gëmal yàlla nag nit ku nekkat ñun ñëpp kat ku ci dem toilette. lu mu waxate <laughs> yàlla xamoon ñaata waxtu nga fay def kat ça dépend rek ci li nekk manque de manque de c'est doux faut nerf <laughs> Yalla.. pardon de toi mais tu vois mon DJ il me fatigue après je vais faire corps là après hmm? nijaay sa pare pare alhamdulilah waaw lii kay moom sant yàlla lay xam nga kii xoolal walla am na luy xeeñ na mango xam nga si wér koor mais mango fii amul garab mango waaw amul garab mango moom garabu nii mi rek a fi nekk de moom moom mooy loolu si ñen Il non non. non y' a deux enfants qui étaient en train de se battre dedans là-bas. Eh, eh, eh, ils se battaient et puis. c'est eux qui m'ont au nom de Dieu. je les ai séparés. xale bi yàqul. waaw déedéet defal naa ko rek. bàyyi gune gii wallaay je les m'a sali comme ça. ñu ngi ci weeru koor. Hmm. les bu ne lépp loo mën a def sa bopp nga ko defal. je les ai mën a am sa bopp nga ko defal. kom nee na lekkul waay waay buñ ko xëccoo buñu xëccoo loolu. wallaay déet loolu ñu dem may la ñu dem. kii kii kii bàyyil gune gi bàyyil gune gi. wala xam naa bàyyil gune gi waay. kii sama jamono bàyyil gi. wala maa ko xam bàyyil gune gi. xale bi nu mu mel. déedéet bàyyil gi. ah bàyyil gune gi. boo xamoon noonu doo ànd ak bàyyi gune gi. ah bàyyi gune gi. gis nga xale bi baax la bu jógal bu bàyyi gune gi rek ñu dem waay waay yow tam nag gaas ëppal nga lool ah bàyyi gune gi waay gis nga fii nag mooy rond-point Émile fii lépp lu fi am fii la ñuy defee lépp li nga xam ne am na fii biir bi ñoo na kii taxaw nii moom mooy statue Émile dégg nga 1915 la judd gaañu 1972 c'est fii le premier maire fii ci Bignona dégg nga de li nekk ci moom bii de moo nekkaat ci statue bële yaa ngi déglu waaw fii la c'est le grand rond de Bignona fii mooy Bignona pour qu'on aime

un grand homme politique. boo <laughs> laajee Senghor bu wax la ko. Senghor Ndeysan, il connaît très bien Émile. Ndeysan. mais mais mais mais Ndiaye. façon il est habillé là il faisait beaucoup de malin hein. il avait beaucoup d'argent. dé déggee ko. mais bàyyi xale bi doj waxul loolu. li mu wax aayul dëgg la bëri woon na xaalis bëri woon na xaalis. mbële te loolu du dara. ndeysaan dama xaw rek. Ndeysan, góorongo c'est un grand homme. voilà c'est ce qu'il dit là. c'est ça la. t'as vu la veste qu'il a portée là. Si tu n'as pas l'argent, tu ne portes pas ça. Tu ne portes pas les trucs comme toi, comme ça. dégg naa fukki dëgg bàyyi loolu. loolu lay wax foofu lay waxee foofu lay waxee. gis nga kii gune la waaye foofu lay je xale bi <laughs> nañu ko dem am feneen fu ma la la terre ne ment pas, c'est vrai, mais l'homme ment. Parce que mon nid là, tout ce qu'il m'a dit là, Jai il est venu m'exploiter ici. Hein? <laughs> Je vais lui montrer que moi je viens de Dakar. Je vais lui montrer ça. dañoo bëri kaay kaay kaay mu tax dawal dawal dañu tax may ma tuuti may ma tuuti gis nga kii sëñ bi baax na bi xale bi nu mu mel xam nga yow yaa am yow bi na ab lay eh il était pendant il était pendant eh. vraiment il eh. était ah. pendant mënum téléphone tu veux le téléphone. ni c'est mon sama patron euh, Dakar il m'appelle comme ça. Ah, mon patron alors patron <laughs> oui j'ai dit chérie je t'ai dit faut pas m'appeler j'allais t'appeler je t'ai dit que je suis pas à Dakar je viens hein je suis au Canada. Canada. Ils m'ont logé dans un hôtel qu'on appelle Bignona. Ah Toi, tu sais qu'ici, un homme d'affaires, je bouge. Hein L'argent, je vais t'envoyer l'argent. Hein, toujours l'argent, je vais t'envoyer. Je vais te faire un transfert. Hein, soit je te fais un transfert ou bon, je. je bon, affaire italienne. Hein. Oh, oh, Gassama. Ah, très compliqué. Oh, non, non, non. non, non, non. Bah, <laughs> mais faut plus m'appeler, hein. tu laisses, moi je t'appelle. <laughs> ok, au revoir, un hein, bisou. Ok. Oui, patron, merci beaucoup, patron. Ni de kawol, de kawol, de bëree dëgg-dëgg ndax ràññee nga leen Liberia génne nañu génne nañu leen Angola génne nañu